mbirum gént ak it di leen baaxee ay tegtal xaj na ci tiktok bi euh, tey nag dañ leen indil gént xar moo xam gétt xar la wala ay xar yoo yor sa kër euh, gént am ay xar wala gént say sag jur réer ak xeet yu demee noonu moom bokk na ci gént yi nga xam ne day màndargal lu bëgg a dikk ci yow moo xam gàllankoor la wala ci ak wàll alal juy dugg sa loxo ku gént yor ay gat maanaam yor ak jur nga moom leen kooku alan la ak yokkute la gént yor géttu xar dana tekki ak yokkute ci yow ak it mbooloo mooy rawatina bu fekkee dang leen a yor di leen sàmm wala di leen jiital loolu it mën naa tekk mbooloo mooy jiite mbooloo mooy jiite ci entreprise wala mooy jiite ci leneen lu demee noonu ba tey bu fekkee da nga gént gis sa sa sa sa gàtt mu faatu bokk ak nag ñu rey ko waaye gis nga daal mu faatu loolu ñaari gënul ah, dana tekk alal ju yàqu dana tekki it mën naa tegtale it kenn ci sa njaboot ak faatoom ñaare mën naa tegtal loolu ci ñi nga xam ne seen gént day wëlbatiku ba tey lu mel noonu it boo génte lu mel ni nga gis sam xar naaw lu mel ni jëm asamaan wala xeet yu demee noonu loolu mën naa tekki ak faatu kenn ci sa njaboot mën naa tekki loolu bu fekkee da gént ñu sàcc sàcc say xar wala nga gént say say say sa jur réer ci biir gent gi nga koy wër te te te gisoo ko loolu jafe-jafe jooy am ci alal ji la ak it ak yàqu-yàqu loolu it dana koy tegtale wala alal jooy ñàkk ñuy génn ci sa loxo bu fekkee nag ci masalan da nga gént di rendem xar loolu ci ñi nga xam ne dañuy faral di liggéey turu yàlla moo xam ne tasxiir la wala dañ di nit wala di ñaan aajo wala xalma xeet yu demee noonu ñaare bu fekkee ci biir gént gi danga nga gént gis am xar mu ñuy rendi loolu sarax lañ lay la la bi wan sarax boo war a génne la dana tekki ak yekku dana tekki ak ijaaba Euh, loolu it dana koy faral di ci ñi nga xam ne ci wàllu course ak yooyu ba tey it boo jékki-jékki woon gis di ren am xar loolu mën naa nekk jëmmi sarax yow tamit ci yow soo ko mënee nga génn ko lu mel noonu it mën nañ la wane sarax nga xam ne dañ la da gis yor yor gàtt di ko génne sa kër wala yor gàtt di ko mat di ko joxe wala nga gént sax ñu tegal la gàtt nii nga jàkkaarloo moom loolu it mën naa tegtale sarax ba tey bu fekkee da nga gént ci sa biir géttu xar lu mel ne ay kaña wala lu mel ne ay muus di leen rey wala xeet yi demee noonu loolu am nga benn rab wu ne ci kër gi mu yàq sa alal wala ay def-def yuñ lay def ngeen yàqal la loolu nang ci bàyyi sa xel bu baax a baax. kon euh, ak jur day tegtale soo ko moomee ak yokkute buñ ko nangoo ci yow maanaam nga yor ak gétt xar euh, ñu ko ci yow kooku alal ju ñu jële ci yow la maanaam alal yooy ñàkk la mooy nga gént yor ak jur ñu nangu ko ci yow noonu alal ju ñuy rekki ci yow la mën naa bañ nekk jëmi jur gi waaye day tegtale alal waaw ah, ñaare gàtt nag day tegtale alal ju ju ju ju lew day tegtale alal ju lew lew ba tey lu mel noonu fii ne boo géntoon ah, di listixaar lu mel ne ah, soxna wala ngay listixaar lu mel ne boroom kër gént ñu jox lam koy wala nga gént nga war ko ci kawam loolu dana tegtale bu dee jëkkër jëkkër ju baax bu ne soxna soxna su lewet ndax am xar dafa lewet comme kem euh, bahima yi niñ la koy wane ci li ngay seet wala ci li ngay dundu ñaare prix mi day day day jeexate ci loolu comme lu mel ne xar nga xam ne taamu nañ ko euh, ak lewatam ak it ak baax mm, baaxam ak xeer yu demee noonu bu fekkoon da ngay listixaar soxna ndax baax na am déet nga gént ñu war lam xar loolu xamal ne soxna su baax lay doon boo géntee nag ñu wan la ko mu dugg sa kër wala nga gént ñu wan la ko nga yor buum gi loolu lépp dañ ne tegtal ne soxna su baax la waaye danga ci jot bu fekkee ne da nga gént mu wan la ginnaaw di dem wala nga koy dàq te mënoo koo jot loolu moom bu boobaa nga bàyyi ko ndax xamal nañ na lii danga ci sonn waaye du du ci sonn yi du sotti ba tey bokk na ci ay màndargal wàllu tasxiir ak wàllum not ngeen war am xar loolu dana tekki am not ak not ci nit koy not moo xam góor la bu dee xar mu góor moo xam jigéen la bu dee xar mu jigéen kon mbokk yi lii ab tënk la woon luñ leen indiloon ci wàllu xar muy lu am solo gént gént ko am ko wala ñu jox la ko wala nga gis ko mu bari lool ci sa kër rawatina sax su fekkoon barab booy bëgg a dëkk wala euh, pàkk booy bëgg a jënd wala terrain xeet yu demee noonu nga les sa ko wala nga seetlu ko gént gis fa mboola mboolam géttum xar kooku gaawal nga jënd ko alal ju yokk la boo ko jëndee wërsëg euh, barab bu am la waaw bu dee palaas euh, kazalika loolu lay tegtale kon ngeen wéy di abonné ci chaîne bi ak di tasaare vidéo yi ndax bokk na ci li koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu